kon defe naa ne ñoom ñaar ay naataangoo leen ci làmb ñoo bokk liñ bi ñu dugg ci làmb mbokk yi bokk ay journée yoo xamante ni jot nañ ko bëri ñoom ñaar waaye tey ma ciy jaajëfal ki nga xamante ne mooy Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production mbokk yi comme ni ma ko waxee chaque jour rek defe naa ni man bu doon sama sagoota da leen bàyyi kii jaar nii kii jaar ni ba ci kanam defe naa ni millions yi gën a bëri ñu doog a tase waaye comme que Fallou moom defe naa ne day bëgg chaque jour affaire yi di metti bëgg di boole espoir yi ndax saa bu tëggee amateur dinañ kontaan euh, supporters yi seen xol dina sedd waaye bala laataa loolu rek ma fàttali leen suba mbokk yi mercredi bi defe naa ne Bulldozer la ak ki nga mooy Farouz fee ci arène nationale ba defe naa combat yi neex a neex a neex a neex am na fa waaye na ñaar ñi nag fa la ñu war a jàkkaarloo muy ki nga xamante ni mooy Diop 2 ak mooy Jeex Jàmm laataa loolu dama koy bàyyi mu nuyoo rek ñu doog a wéyal yi Jeex nuyu naa la. waaw Ousseynou ñoo lay fay di nuyu waa àdduna waa Sénégal waa diaspora bi yëpp di nuyu suñu sëriñ sëriñ Cheikh Fall Mbawar di nuyu sëriñ Xaarim mu Daara Moti waa kër eh, sëñ Amsa Mbacké maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama mbokk mboor yëpp di bëggee waa axlu lamb ñiy suivre làmb ñëpp ak ñiy suivre jeexjaam yëpp jeexjaam mu ngi leen di leen ziar. gis nga mbokk yi noonu mu nuyoo am na solo waaye ma fàttali leen ko moo ngi ci 7 combats 7 victoire boo ñu doon limal palmarès parce que démb seet nañu Boy Diop noonu la ko Boy Diop defee palmarès bi kenn nga jëkk a bëreel ak kenn nga dugg ci làmb jeex. waa jeex mi ngi dugg 2028 mars premier combat am yaaraam mi nga bëri ak fii sa waaw fils de Ndiogou bu parcelle deuxième combat mi ngi ko bëre ak euh, Ama bu Yoff troisième combat am hmm, troisième combat non non Milgiso quatrième combat su lay génne. combat boobu moom bul wax combat boobu du combat combat bi daa xas-xas noonu ngeen wax ngeen lu ne bi ngeen ñëwee jotulee abi sax sifle wul. quatrième combat su lay génne cinquième combat euh, Aliou Aliou Fatfat. après Fat Fat Ibou Avia après Ibou Avia bébé Bismi waaw ak Souley Gaynde yaakaar naa ñooñu la jeejëre daan euh, defe naa ni bi mooy sa deuxième grand combat waaw bi mooy sama deuxième grand combat nga nga bëgg Ibou Afia ñëpp naan ay xale lañu combat bu neex bi nga ñëwee baat tontu la mais dama ñëw taxaw tuuti sa combat yaak bébé Bismi bi nga jëlee bébé Bismi ñu si bari dañ ne woon amuloo ci sens parce que bébé Bismi la jiitu ci làmb bébé Bismi la dàq ba bébé Bismi la dàq xeex ñi mu bëreel bëriwoo ak ñoom mais ñu ñëw abisif la nga déglu ko naka nga bëree ak Bébé Bismi. waaw man dama gëm ne làmb yooyu yëpp amu ci parce que làmb man-man la loo mënul rek doo ko fekk te yaakaar naa mën nañ ci tuuti donte ñu lépp tamit man nañ ci lu bëri kon yala ngi ñuy suturaal daal dama jàpp ne mbër yëpp mbër lan ndax képp kuy bëri rek am na loo mëne te yaakaar naa benn action rek dañ ne benn action bu nit mëne rek um na làmb kon xëy na koo gis muy bëri rek am na lu mëne kon koo gis ci làmb rek mbër la kon ni mil ni ni euh, Bébé Bismi nekkoon mbër noonu la Dieye Diama nekkee mbër yaa naa ñaari mbër fu mu dajee mbër mi ñu nekk war naa mën a daan sa morom loolu la woon. mais abi sifflé sa digganteeg Bébé Bismi nga taxaw di ko déglu taxaw di ko déglu taxaw di ko déglu bañ ne jeex jàmm tey dafa mel ni xalaatam dafa jeex. noo jeex euh, bëre na xëy na nag bëre ñaara koy def comme ni nga ko rek moo ma jiitu ci làmb ñi mu bëreel bëreew maa ngi ñoom kon kooku booy bëreeg moom war nga cee def war nga cee def ndànk war cee def demee ci xel mu dal daal woon naa moom bëggoon naa Euh, daan ci jële bu gaaw mais tamit bëre ñaar koy def nit day taxaw ngeen bëre mu neex mais bu taxawul kenn di bëre loolu mënul neex. da ngeen taxaw taxaw bu yàgg ñu jékki-jékki gis nga déclenche xeex bi lan moo war nga déclenche xeex bi li mu la touché la wala lan la moo tax nga topp xeex bi am na benn moment xeex ngeen ba nga sëqatal ko dóor ko ba mu daw génn. ah làmb yëfi góor la rek ndax gars yi a day métti nay métti waaw kon xëy moom moo njëkkee dóor yi mais dama ko faa xaar xëy na ba may fay moom xaaru ko fa lool rek la. amoon nga yaakaar combat bi dina demee noonu. non man moom jàppoon naa ne mi-temps sax duñ fa egg ma daan ko xooli leneen. nga jógee foofu defe naa ne ñu la wër adversaire nag defe naa ne wër nañ la adversaire lu la moo tax combat bi yéexoon taxaw. waa jeex xëy na bëggoon na euh, yéeg ci kaw grand yi may ko sens mais xëy na tamit comme que grand yi xay na ñu ngi koy bàyyi xel ba tax na nanguwuñu koo may sens waaw mu delluwaat ci ay moroomam rek. waaw jéem a defaat dara. kon kon su ma déggee mooy bëggoo woon ak bëri say morom da nga bëggoon tàllal loxo yi grand yi may la chance nga def benn kii xaw a dem yooyu. waaw parce que tamit jeex ay ndaanaan la fi daan te jeex li muy indi ci làmb bëri na ah, néew na moromam yu koy indi ci làmb kon xay na ko euh, grand frère yi war nañ ko war di ko may chance pour mu pour mu pour mu bokk ci biir làmb daal loola rek. mais mais mais la moo la lan moo ak ki nga xamante ni mooy Boy Diop parce que defe naa nag. Boy Diop ab njool la moo xamante ni nii bu bu dongalee ba sotteekoo soow bi takk veer yi defe naa ne ku àndoon ak moom sa xol dina sedd waa tribune ma yàlla buñ tàllal foo yu weexi waaw dama ne ku jógee ci njool ma mel ne bébé bis mi boo dugaa ji boo dugaa di ma neen njool a mën a jaaxal waaw man loolu laa gis rek mais lan moo dugal ci Boy Diop non Boy Diop dara nee naa la amoon naa envie bëre ak ñeneen ñoo xam ni ñoo raw Boy Diop mais tamit comme que la lan fi nekkal nekkul fi benn mbër xëy na euh, lépp lu amateur yi soxla fans yi soxla ko rek xëy na war nañ leen ko war a mën a yombalal loolu la rek mais du leneen. sa digganteeg nga ci nar parce que defe naa nag suba ngeen war a def si seen premier jàkkaarloo arène nationale présenté wu. waaw Boy Diop sama digganteeg moom xanaa jël ko rek jaarale ko ak fi may jaarale ay moromam loolu laaj naragun loolu laaj fas yéeneegun incha allah di ñaan yàlla yàlla suturaal ma may ma ndam ci kawam. mais jeex na bi affaire yi dafa yomb trop parce que boobu fi rek dama koy jël jàllale ko noonu xam nga seetaan nga Boy Diop Boy Diop nee na moo la mën. moo la ëpp doole moo la dàq ba nee boo ñëw bul def daal ñëw yow na nga fexeel ba yegsi ba taxaw. waa boo jóg moom nee moo man moo ëpp doole moo dàq bëre mais jàpp naa ne maa ko dàq daan man maa ko dàq daan. moo dàq moo dàq bëre moo ëpp doole mais yaa dàq daan. waaw nangul naa ko lépp mais daan moom maa ko dàq. dégg naa ñu ne football de dugal la ci am solo même lu football ba rafet rafet na bii bi dugg rek. noonu la demee nag. <laughs> yaa boo jóg ëpp doole. jox naa ko lépp bala jour ba. bu suur baa nag moom bu bu bu bu ndënd yi bu ndënd yi jiwee waaw ci la xam kan moo doole. mais loolu est-ce que boo ko joxee lépp tamit nag waa mboor mboor yi dañ la bàyyi ci loolu. lépp dama ko koy jox. combat bi du du damay ñëw di wax wala dara. non mais nag faaw nga wax parce que xam nga tey làmb moom bu ñu ñëwee fii toog dañoo bëgg a jaay làmb ñu ci bàyyi neen combat bi dañ koo teel a jaay mais nag faaw ngeen jaay combat bi. non booy jëp man samay supérieur jee jaam du du du imposer ay supérieuram ci dara. parce que samay supporters li ma sant maa ngi ci man li ma leen sant ñoom dañ ma koy defal fa force waaw ñoom ni ni ni amee sañ-sañ na ma jeex ma naa leen naam ñu ne ma jugal nga dem dem entraîné ji man laa amee sañ-sañ ne leen bi sàngam dama leen a soxla fii noonu la demee nag. mais mais mais mais jeex jàmm dongale takk ay jaajam simeeku gis ay supporters am teg bële balan yi ci kaw moo war a jàkkaarloog Boy Diop mais loolu loolu loolu loolu Boy sottee ko sow gars yi topp ko est-ce que loolu yaa ngi koy imaginer. waaw man dama ne jeex ku dul ne arbitre bi dina biir géew bi lu la neex waxal bàyyi naa ko mu wax lu ko neex. mais démb dama koo fàtte am na benn code bu mu def ci biir ci biir affaire yi du si mu de xaw ma code boobu nag sa diggante yow ak euh, ma loolu noonu de. sa yi ngay def sa affaire teqel yi ngay nekk di def nii bàyyi sa yi ngay def waxal ak waxal ak gars yi. wax la bàyyi ma xel lool moo loolu làmb la daal en tout cas li ci amateur yi soxla daan ko ci gis ah loolu daal moom dama leen koy dama leen koy garantel moom li ci amateur yi soxla hmm. bu dee duy stade mu fees Iba Mar maa ngi borom la demee sama gars yi fa jotoon na euh, gaañ yëpp nekk doo leen masawu coono encore hmm. waaw di wax bu ñu fa dugaatee tamit yàlla na ci dugg si jàmm génn naa ci alhamdulilah ah, Iba Mar pour les lan lan ngay yóbbante Boy Diop. waaw Boy Diop dara di ko wax ne ko ndaw la may ndaw rek na dem yokki doole entraîné ji man li ma war naa ci nekk di ñaan yàlla yàlla may ma ndam ci sa kaw yow Boy Diop incha allah. li mu yor nii da nga ba koy ba mu dem entraîné ji. doole la parce que moom nee na dooleem ëpp na fo te li yor nii rek li may gis nii rek doole la te nee li mu yor ëpp na ëpp na lool waaw na yokkaat rek doole doy. kon moom lu mu yokk fi mu toll nii doyul. doole daal du doy loolu laa naa ko doole du doy. yow <laughs> seetaan nga combat bi mujjee ba digganteem ak Clémenceau. waaw seetaan naa ko bëri na lu neex daan daan bi. jël bu rëy nag. waaw daan jël bu rëy. la demee. moom bu ñëwee du def comme mag yi def di taxaw di puusante day ñëw bëre ndax amateur yi ñëw seen xol sedd ci xale yi bëre moo leen fi andi te ñoom dañoo bëgg a bëre nee nag bëggu fee nekk taxaw di buuxante xaw ma nag kan moo tax muy yóbbante loolu. ah moom nee na jeex day buuxante de. waaw te waaw te yaa naa jeex làmm moom benn làmm la ci mas a bëre ba mi sama laam yëpp benn laam laaj ma sa bëri ba mi-temps kon xëy na kooku jërul wax naa ko ay buuxante la genre reme noonu moom nee na xaaruma dara lépp moom moo koy def waaw kon kay na jàpp na moom lépp moo koy def rek man maa ngi taxaw di ko xaar na ñëw yow daal su ma déggul su ma juumul daal daan daan bi daal nga féetewoo nga bëgg a féetewoo maa dàq daan moom maa dàq daan te dama ñaan yàlla yàlla ànd ak man ah. mais combat bi taxaw booy commencé di sànnante xeer waa waa waa waa waa yëmbal ma commencé sànnante xeex ngeen commencé kalaasante combat dafa mel dafa teel am ampleur. waaw combat bi xëy na booy ñoo ngi waxante mais tamit booy li ñuy wax lépp ñun sant ñu ko ci kenn parce que sport la. Mhm. ñoo bokk nday bokk baay. xëy na bu ñu fa melee neen tamit après dañuy gisante waa di rouge wala genre demee noonu man jeex samay supporter li ma leen wax mooy booy Diop lépp lu mu leen wax xëy na ñoom nan ko xaar ci man ne dinaa leen ko fayul ñu wax kenn lu ñaaw wala genre remé noonu ñoom nañ toog ci li leen war ñu nekk ci lu ñu war waa jël suñ combat di ñaan yàlla mu suturaal ñu ñu gagné ko si jàmm alhamdulilah rabbil alamin ban appel ngay lancé say supporters wala amateurs yi nga xamante ni nan nañu ñëw suba fee ci arène nationale ci diggante Bulldozer ak ki nga xamante ni mooy euh, Farouz Farouz lan nga leen wax dem suba seen premier face to face waa di wax euh, Mbawar Mbawar yi waa Grand Dakar waa Ñaar Tali waa yi xam nga waa waawu ñaay waa Medina waa Fass waa Gueule Tapée di woo waa benn baraag gi mu dëgg moom waa yëmbal gi ñëpp njaambur njaambur ñëpp dama leen woo. foofu nga am ay supporter. non ëppale wu ma fa de koo ëppale wu ma fa su ma ko fa ëppale wul moom ëppale wu ma fa. mais affaire baa ngi bëgg ko compliqué. moom laa moom su ma ko fa ëppale wul man moom ëppale wu ma fa moom day day fay luyaas moom dafay fay luyaas. foofu day fay luyaas foofu. foo mu nekk dafay fay luyaas am foofu ëppale wu ma fa dara te la ma fa am dama ko fay jëli de loolu yëru saa wax. kon mooy mooy yaa ngi ba ba ba benn kii yëmbal foofu. ñoo ngi fépp nee naa la jeex ba moom rek doy na coono hmm. maam waajal waajal bi rek doy na coono waxuma laa nag nga war a nga wëlbati ko waat ñu war leen a géewal benn géew. lan nga ko naan teg kon defe naa ni comme que bëy ak jeex doy na coono kon defe naa ne nan nga koo teg lu métti. li ma ko wax rek na yokkaat doole na yokk doole waayal man dinaa waayal incha allah di ñaan yàlla ma waaw sama mboor mboor nag maa leen wax ne leen jeex day def Euh, mercredi ci làmb Bulldozer ak euh, Farouz maa ci woo ñëpp waaw ñu seetaan si gunge seen champion. Mhm. soo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax ak lan ngay wax ki nga xamante mooy Fallou Ndiaye defe naa ne participé na sa carrière lu bëri bëri. waaw Fallou Ndiaye euh, jaar naa sama combat sama premier grand combat moom moo ko tëgg xëy na li doon wax rek samay mbokk nee naa leen man promoteur bu bu gis yi man dara ba tax mu tëgg ma. dama ñaan yàlla lam doon gis ci man mu gis ci lu ko raw waaw kooku boobaa ëllëgee day sawar ci yow te yaakaar naa samay mbokk ñoo defal loolu waaw waa diaspora bi tamit dama leen woo ku ci mel ne ñoom sang Sadiès xam nga ku ci mel ne ñoom Sakho Badiane Gora Moudiba Arafas xam nga Wës Jàmbaar xam nga Mbay gars yi nekk foofu noonu yëpp ay Mbacke Thiam Amsa Thiam xam nga Samba Diop ñoom ñëpp bàyyi ma ji kenn képp koo xamante ne rek mbawar mbawar nga waaw di nga xam ne seen doom dafa soxla jeejaam dafa soxla dafa bëgg combat bi ngeen jaabale ko ci ba mu yëg ne moom jaabale na ko ci ba xam ne ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw xam na carrément kat waaw suñu grand yi nekk ci kaw ñoo ngi ñuy jàppale ñoo ngi ñoo ngi ñuy yokk waa ñaar tali Grand Dakar ñëpp tamit dama leen di woo xam nga ku ci mel ne Modou Yaate ku ci mel ne suñu grand euh, Mori Mori Kan xam nga ku ci mel ne suñu grand Pape Diop ma kenn daal su ma limee damay jëm ku ci mel ne Mama Joga yeeg ñëpp moo loolu suñu grand Sayer Sayer Kanji bàcc bàyyi ma kenn daal dama leen wax na leen nañ waayal ànd ñu liggéey yàlla may ñu ndam suturaal ñu waaw ku ci mel ne tamit euh, Assane Seck moom tamit day maire Assane Seck day jàpp suñuy combat moom tamit ñu koy wax na ko sa sa doomu dëgg am na combat waaw na ci jàpp bu baax baax a baax ci ci ci bolo yi. Mhm. gis ngeen mbokk yi noonu la demee woon démb seetal neen ki xam xamante ne mooy Boy Diop tey ñoo ngi fii seet si ki xamante ni mooy jeex jàmm mbokk yi dina jox rendez suba di déggante Bulldozer ak ki nga xamante ni mooy Feu defe naa ne combat yi neex toftal nañ ko ci. fee ci arène nationale la euh, Boy Diop ak ki nga xam te mooy jeex jaam fa la war njëkk a def seen face to face def naa am na yeneen combat yoo ñoo ngi ciy toftal mbokk yi ngeen xaañu te bu leen fàtte di abonné ñoo ngi fi ci Kewel Info dina jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër